Touba ca kanam nuru daara yi di kuréel gi nga xamante ni dafa dajale ay taalibe yu murit kenn ku nekk ci dugal saw ñàq ci googule kuréel weer wu nekk ngir li nga xam ne moo jëm ci infrastructure yi dëkk bu sell bi di Touba soxlawoo ñu koy mën di defar ci ndimbalul taalibe yi loolu nag tax ba bi ñu tàmbalee ñu daal di lancer ay infrastructure yu bare yoo xamante ne ni tabax ñeenti poste de santé ca la bokkoon niki tey jii nag ki nga xam ne moo di xali général des murit ñu daal di inauguré di nga xam ne moom moo di poste de santé bi njëkk bi nga xam ne nii Touba ca kanam defar na ko noppi fii ci Touba Lansar. nekk bërëb bu mucc ayib nekk poste de santé boo xam ne fii ñu ko def ci Lansar daf fi nekk lu fi xawoon a tumuranke ndax bés bërëb fajukaay yi fi gën a jege hôpital Ndaamaatu la ak Kër Ñeng te sooy xool daanaka distance bi maanaam jéego yi ngay def pour àgg ci barab yooyu xawoon na takku te fii amul tali nekk fu gox boo xam ne lii dañ ko yittee woon lool moo tax ñu koy rafet lool niñ ko defee mu sotti war leen amal njëriñ. ngir jëmmal am solo gu bërëb bu fajukaay gi am solo nag ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Dieng di médecin chef bu district sanitaire bu Touba moom nag ma ngay fësal ne gox bi soxla woon na lool li nga xam moo di ay bërëb fajukaay ngir ñi fi dëkkee nañ jànkoonteeg ay coono yu metti ngir daal di dem ci hôpital Ndamatou wala ci Kër Ñang di ñaari hôpital yi nga xam ne moom moo gën a jege gox bi. dafay participer ci. gën a ñoŋal wàllu wérgu yaram gën a woyefal nit ñi paju mi ndax xam nga su hôpitaux yi eh, nit ñi ëppee lool hôpitaux yi nga xam rasio yi war a am entre nit ñi ak hôpitaux yi dafa xawoon a néew lii dafay participer ci corriger gap yooyu maanaam ci fexe ba eh, li ñu nemmeeku woon ci ay eh, bërëb yu amul fajukaay wàññeeku yooyu nag su wàññeekoo li muy indi mooy nit ñi ku feebarati di nga mën jot ci bérébu fajukaay leneen li itam service yi nga xam ne bérébu fajukaay yi ñu ngi koy eh, eh, délivrer di ko jox askan wi service yooyu day am fii kon ñii dinañ leen teggil jéggaani ji paju loolu ci tëkkal kàddu moom docteur Dieng xam ngay fësal rek askan wi li nga xam ne war nañu koo taxawee ci poste de santé bu lan saa boobule rawatina askan wi yeewoo ci boobule gox jamono ji nag muy fësal ne war nañoo dem daal di dëgmali gaaw ci mutuel de santé yi ngir paj moomulee ca poste de santé ba daal di gën a a yemb ci way néew ji doole yi nit ñi nag dañ leen di ñaax ñu fexe góorgóorlu dugg ci mutuel de santé yi pour que paj mi mën a jàppale parce que même ñun ñuy liggéey nekk ay fonctionnaire dañoo nekk ci ay mutuelle ñun ku ci feebar da ngay dem wuti ji lettre de garantie faju ndax di génn di fay ci sa poos pour faju dafa metti te léeg-léeg doo ko am wala doo ko mën kon li ñu ciy génne mooy nañ fexe bu dugg ci mutuelle de santé yi. ci moom it ndaje nag mbooloo mu takkoo takku teewoon nañu fa jóge ca gox bi di Lansar waaye itam kilifa yu takku yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi ci Touba ñoom itam teewoon nañu fa waaye itam gën a soññu taalibe yi ñu daal dugal seen loxo ci kuréel gi ci Touba ca kanam ci loolu sax ki nga xam mooy docteur Dieng ma ngay fësal nguur ak itam ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram gi fii ci diwaan bu Njaareem rawatina ci dëkk bu sell bi ci Touba taxawaay la ñu fas yéene am ci boobule poste de santé